mooy na sëy yi tas ci Sénégal fa bari ba jégg dayo ñetti téeméeru sëy ak ñeen fukk ak juróom bët bu set aay loolu moom bari na di yéen kaay bi ne faa faalan di wax sëy yu bëri li koy gën a tas ba ca njëkk mooy ñàkk doole ñàkk jumtuwaay néew doole ak yeneen yi ni mel daal waaye du loolu rek de yéen a kaay bi nee na am na sëy yoo xam ne xam nga lan moo koy tas famille jëkkër ja maanaam rakk wala magu jëkkër bu jigéen wala goro bu góor goro bu jigéen ñaareel ñoom it fa tas sëy yi bokk na ci leneen luy tas sëy yi tamit mooy aaw boo xam ne fa nga koo takkal ñaareel wujj la ñuy a gis léeg-léeg daal boo ko takkalee ñaareel fay daw génn kër ga ñaan baat bokk na ci tamit liy tas sëy yi ànduk sëriñtu ba tey bokk na tamit ci li tas sa yi Sénégal jëkkër joo xam ne fa dem ba mënatu dara ci jabaram maanaam nguuram nga fa jeex te ñaareel bokk na ci li koy andi góor goo xam ne ngay tërërëri rek topp xale jigéen yi fa ngay dem ba dootoo mënati sa jabar dara su boobaa nag soxna sax xam nga lu mu lay wax lekk ak naan handiwu fi xam na sama kër baay soo mënu ci man dara ba ma ma dem seeti keneen donte léeg-léeg nag nga gis jëkkër joo xam ne motoram ba fa paan terewut jabar ja fa koy muñal mu faju su mënta wér seen tëdd ay la yàlla baax na observateur moom fa xamal mbir mu yéeme garaaw ba pare reetaanlu yow seetal fa xam benn apprenti oto car oto ba fa doon daw nekk biir ndakaaru ci circulation bi nit ñi bëri apprenti ba biiram ba di daw mu bëgg a dem duus amut fu mu demee ba mu ko jéemee téye ba sonn munut ci dara xam nga nu bi def fa yéeg ci kaw oto bi ca porte bagage ba fa yéeg rek su mu tubooy ja jonkoon tiire ko fa jàpp njàmburam allah waa ma ne ngaa juum de fa ngaa waroon a wàcc oto ba daw dugg ci biir kër yi bul nuyoo sax xubbil bunt ba rek xóotali duus ba soo paree doo di nuyoo ndax biir buy daw bu la daanelee dëgg dëgg dëgg hey aka métti laa bu la dalee ci oto na ngay tukki booboo gën a métti nga yëg nga ñàkk yëg ñeenti xale dañoo faatu ci njeexitalu semaine bi lee source ay yëglekaay naan man ñoom ñeenti ñëpp nag am ndoxo leen yóbbu yëglekaay gi naan man nañ dem ca Thiès kaay dëkk ñaari gaar ca Mbour 3 Thiès info yëglekaay ni ko mbir mu yéeme te doy waar moom la ñuy doore yëglekaay gi naan man ca Mbour kay Thiès ay xale la ñu yónni woon ca boutique ba ci jooju la jamono daanaka taw na ba taw bi tàmbalee wàññeeku muy wis wisal yëglekaay gi naan man ñu yónni leen ca boutique ba xale ya di ay mag ak rakk góor ak jigéen yëglekaay gi naan man seeni at nag tax koo bari lool Sénégal ki mag daanaka am na douze jàpp treize ans yëgle kaay gi naan man ku góor ki topp ci moom am dix ans seetal ma lii mbir mu yéeme te doy wax xale yi ci jëmi boppam dugg ci fosse septique boo xamante ni daanaka daa fees comme ndox yooyee te te te daa laf ci ndox mi faatu nii mbir mi yéeme na wuy metti na doy na waar ay kuy wax ci lii ndox ndox boo ko gisee mu taa rek watul man nga koo jaawaleekub taataa fekk na kàmb la goo xamante ni xëy na lap mën na la caaf xale yi ci yëgle kaay gi man ay ñaari xale yoo xamante ni itam dañ leen a fekk ñu faatu ca buutuut yëgle kaay gi ci tool bu ni bay ab ceeb yëglekaay gi ne lan leen a fekk ñaari xale yi seeni néew ñu lab ñoo bi dem faatu ca ndox ma lii duñu ci wax yàlla na leen yàlla yërëm doona ya bunt ba ubbeeku na diwaanu Sigicoor daal di wax ci meneebar bi nga xamante ni moom nag dafa dal di jóge ci kaw bâtiment daal di daanu jaaree fa nag génn àdduna ki saasi mbir mi nag mi ngi am démb ci àjjuma ji foofee ne ca quartier bu ngi naan Kanjalang ci diwaanu Sigicoor moom nag waa ji sax ba tey ji xamaguñ sax ñaata at la am waaye lu ci mënti am daal mbir mi nekk na choc bu nga xamante ni daal tax na liggéeykat yu bëree bëri yu nekk foofu ni daal mbir mi lenn rek moom moo ko waral moom moo di daal ñàkk respecté liggéey waaye itam ñàkk am sécurité bi nga xamante ni ñoom ñii ñu ngi koy amal sapeur pompier nag daal di ñëw jël néewam moom waa ji yóbbu ko ci l'hôpital bu Ziguinchor waaye itam euh, police daal di ñëw ibbi ab l'enquête itam xool ana ban anam daal la waa ji daanoo mu mel ni daal loolee yen saay dafay bëri ci yenn chantier yu nga xamante ni ñii di mine bari dañ fay ñëw di daan seen doole waaye itam sax yenn saay bëgg am dërëm bu ñu yóbbu ci kër ga rek mooy tax waaye itam li ko dalee ci sécurité nag mbir moomee yenn saay dafay daal di manqué foofee ñu daal di dem ci tribunal bu Mbuur wax ci mbiru nappkat bi nga xamante ni moom gannaaw ñeenti at yu nga xamante ni am na ko ci kaso ñu ko doon tuumaal wàllum viol maanaam sàkku ab xale bu jigéen moom nag tribunal daal dina koy bàyyi mu ñibbi këram moom mi wékkituru Ali Guèye nag nekk ab nappkat bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xamante ni am nañ ko daal procureur li mu sàkkoon ci moom moom moo di ñu daal di ko tëj ñaar fukki atu kaso nga xamante ni daal daf koy daal di tëdd loolu nag àttekat bi daaw ko maanaam topp ko ci délit yi nga xamante ni moom lañ ko doon toppee moo di délit de viol et de pédophilie sur trois mineurs de de moins trois ans moom nag sax waa ji daanaka ñetti mineurs yi nga xam ne daal tris ans la ñu daal di am kenn ki tudd M Seck kenn ki M D Sarr ak keneen ki di Agey ñoom ñetti ñëpp nag daal mel ni dañu leen daal di toppee woon. ca kanamu yoon an andi leen fa ngir daal di mal nappkat bi nga xamante ni amul lu dul juróom fukki at mbir mi nag sax mi ngi amoon atum deux mille vingt mois d' mel ni sax moom waa ji rakam bu jigéen moo ko daal di yóbbu ci yoon gannaaw ba nga xamante ni daal dafa mel ni ku njortu ñetti xale yi jigéen yi di waxtaanee wàllum saako bi nga xamante ni moom nappkat bi mu ngi ko doon daal di amal lu ci mënti am daal mbir mi nag tribunal daal dina setal ba mu jeex taa ki nga xamante ni moom moo di Aly Gueye bàyyi ko mu ñibbi foofee ci ca diwaanu këram mu mel ni nag mbir mu nga xamante ne nag ñu bëri ci seen i jege naa daal jàpp ni est-ce que kii di nga xamante ni moom a nappkat boobee gannaaw ñeenti at yu nga xamante ni passé na ko ca kaso ba ndax du ñëwaat moom itam daal di nga xamante ni moom moo ko daal di andi foofee ca kaso ba mu am fa ñeenti atu kaso tey yi nag lépp jeex na ndax daal nay ñibbiwaat ci ay mbokkam ñu dal di wax itam ci mbiru politique ba tey dal di àddu ci kàddu yu ñagas nga xamante ni moom mi di imam Dramé bokk ci parti bi di Pastef daal di ko yëkkati wax nag ay kàddu saaga sax jëmale ko ci ñenn ñu nga xamante ni daal ñoom ñoo nekk ci Pastef ndax moom nag jàpp nañ daal am na ci ñu nga xamante ni gëmuñu projet Pastef dem nag ba yëkkati ay kàddu saaga kàddu saaga yooyu sax moom moo waral mouvement de doomu daara patriote di madap bu ñu sukkandikoo itam ba tey ci ka nga xamante ni daal moom moo di maam Tayir Fall moom nag daal dinañ nakarlu bu baax a baax kàddu yooyu ne ñoom nag nee nañ sax projet Pastef nag amul benn waaye tamit amul benn yoon li nga xamante ni moom moo di yàkkante bon ñoom waa mouvement doomu daara nag li ñu jàpp ret moom moo di mbir moomee dafay war a jóge jeex tàkk nag mbaadu nag itam bukki bi màttoon waa Benno Bokk Yaakaar moom mooy waaj a màtt waa ci xëccoo postu ndax nag moom Imam Dramé ñu bëri ci ay gëstukatu politique daal jàpp ni la nga xamante ni lañ ko ñàkk a jox poste ret mbaadu moom moo tax jamono bii nii mu xaw a jëflu lu ci mënti am daal moom Imam Dramé demoon sax ci ab benn télévision dem ba mel ni ku nga xamante ni dafay daal di xas kii di El Malick ak ñu mel ni ñoom ndax jàpp nañ ñooñu daal ñoom ñoo bokk Pastef waaye ñooñee bokkuñu ci ña nga xamante ni dañuy daal di wuy téléphone Imam Dramé nag jàpp rek sax ñoom ñii ay relais lañ yu nga xamante ni saa su nekk ay nit dañu leen di jox ay joyantal kon nag tey jii bu woowee ñii di ñoom El Malick Ndiaye ak yi ci aju dañ koo war tontu loolee sax El Malick Ndiaye daal na koy weddiwaat ba mu jeex tàkk eh, ci benn télévision bi nga xamante ni eh, eh, dañ ko ci invité woon lu ci mën dem daal Pastef jamono bi tàng na jër diggante ay militants ñi nga xamante ni nag ñoom itam dañoo mer ba futt ñu waree loon jox ay poste te kenn joxu leen ñoom ñëpp daal jamono bi ñu ngi mel ni ñoo nga xamante ni dañoo jëflu ci boobee jamono nag moom Ousmane Sonko mu ngi doxal ak guvernement am di liggéey di jooyanti yenn jafe-jafe yu nga xamante ni daal am na ci biir réew mi lu mel ni mbënd mi lu mel ni mbëkk mi gouvernement am fexe koo saafara ba mu jeex tàkk cent jours yi nga xamante nag am nañ ko ci bopp réew mi sénégalais yu bëree di wax waaye loolu nag nguur gi nag ñoom eh, a gestu ñooy wax kat yeneen taxaw di wax ba tey rek moom moo di ku mel ni Bougane Gueye Dany ak ay Thierno Bocoum ñoom ñëpp nag faree ci ku jégi taxaw temm nag ba bépp fakkastal bu nga xamante daal gis nañ ko ci nguur gu bees bi ñoom itam taxaw temm net fas yéene jàkkaarloo ak ñoom moom njiitu réew mi nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekkoon foofee ne ci diwaanu France daal di assisté ci la nga xamante ni moom moo di jeux olympiques yi moom nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jii la gën a wone li nga xamante ni moom moo di fiertéem ci Sénégal waaye itam waat sax ay kàddu yi nga xamante ni dafa dafay dànkaafu rek ñii di tubaab yi ngir ñu wàññi yenn comportement racisme yi nga xamante ni ñu ngi ko doon amee foofee ne ci diwaanu France rawatina itam yenn euh, tàggat yaram ñi nga xamante ni daal yenn saa dañ ciy gis yenn discrimination jëmale ko ci race noire boobee ne ñu dem ba tey ci diwaanu Louga wax ci jiyee bi nga xamante ni moom moo am foofu ñeel nag benn taalibe bu nga xamante ni moom daal gannaaw xoqatal yi nga xamante ni sëriñam daf ko ko doon xoqatal waral nag moom taalibe bi dem ba xam ne daal mënatul leen rek la daal di def moo di jël paaka daal di koy jam sëriñam sëriñam boobu sax daal di faatu moom taalibe bi nag daal di dem ba ki loxoy gendarmerie jibal boppam yàqal na askan wu bëree bëri loolee sax moom moo war itam yéen ki jàngalekat yi daal jàpp ni yenn saa itam bundu xatal bu ñuy bundu xatal taaliba yi ñoom bu ñu xamee ni que nag mënatuñ def lu dul fay nag après day dem ba nekk ay nit yu nga xamante ni dañuy violent loolu loolee saa itam daal ay jàngalekat yu bëree bëri jàpp ni jamono bi xale yi système jàng bi dafa changé nag nag mën nañ leen yar sans autant ñu leen di violenté yenn violenté yi nag sax mel ni lu nga xamante ni dafa tàbbi ci kilifa yu nga xamante ni daal ñoom ñooy saytu wàllum njàng mi pare nag pour jël ay matukaay xool ana naka la ñuy moderniser wàllum njàng mi waaye itam sax fexe ba saytu kaaraange ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taalibe yi ba yenn ñaawteef yi bañ fa amati ci diwaanu kaay nag gannaaw ginnaaw eh, ba ñaari xale yooyu faatoo eh, ci ab eh, fosse bi nga xamante ni daal ci ab sànq la nekkoon askan wa ñoom nag daanaka sax dañuy nakarlu anam ba nga xamante ni mbir mi amee na ko fa waaye itam sax ci foofee nga xamante ni la am moo di borom kër ga ñoom kenn xamuñu ko ñuy nakarlu itam ñàkk relation bi nga xamante ni am na diggante population yi nekk foofu ndax foofee daal dañoo gis ni que bopp sa bopp rek moom moo fa daal di am Abdou itam di xale bu góor bi nga xamante ni daal daanaka moom dundam ne bu la woon moom ak rakam bu jigéen bi ñoom nag seen néew ba tey ji rek ñu téye ko euh, ci l'hôpital régional di amal la nga xamante ni moom moo enquête ba ca boobu jamono nag mairie bu Thiès euh, nga xamante ni rek moom moo di euh, moom moo di jiite daal di andi ay moyens ngir faat ay bakkan dem sax ba jege ñaale yu nga xamante ñoom ñoo di ñaale xale yooyu ne dem ñoom dañuy porter plainte ndax nag mbir moomee lu jiig njaag rek moom moo di kàmb googee ne moo nekk nag tiis bu nga xamante ni waa Thiès dëkkee nañ ko ci bisu alxamis bii ni eh, gannaaw taw bu métti métti bi nga xamante ni amoon na foofee ne eh, ci diwaanu ba ñaari xale yooyu dal di ñàkk bakkan. Après plus de deux mois en prison, Lac 2 vient de retrouver la liberté. Interpellé le 14 mai dernier, le chef de file de Wallo était poursuivi pour des faits d'escroquerie au visa de la part d'une dizaine de candidats au voyage en Angleterre. Et toujours d'après Sonolombe, Ce dimanche, ce sera le dernier face-to-face -face entre Balla et Tafa. En basket, retenez la finale de ce samedi. Le Duc va faire face au monstre AS Ville de Dakar et record de s'interroger AS Ville de Dakar, Duc, à le ticket de la balle wax itam ci mbiru mbër bii nii di Lac de Guiers 2 moom nag démb ay taskatu xabaar xam ne ni ko kat moom Lac de Guiers daat ne génn ca kaso moom nag sax gannaaw la nga xamante ni ñoo ngi ko doon toppee moom moo di escroquerie ci wàllum visa Lac de Guiers 2 nag daal di génn kaso ganaaw ay weer yu nga xamante ni am na ko foofee ne ca kaso waaye moom nag suñu dem mbokk taskatu xabaar yi ñu nga xam ne moom la dëggeer daal daanaka liberté provisoire la am ndax moom ñu ngi ko doon laaj lu juróom fukki million ak ñett waaye loolee nag ñoom ñi xaman sax ay kilifa yu bëree bëri daal daal da ciy jàpp joxe ko ku ci mel ni El Hadj Ndiaye bu 2STV daal na ciy joxe wàllam ak itam yeneen nit yu nga xamante ni daal ñu ngi ciy tudd seen seen tur ba tey nag ci ki nga xamante ni daal moom moo di avocat di Maître Faty daal moom moo jébbaloon li nga xamante ni moom moo di demande de liberté provisoire bi loolee nag daal nañ koy nangu moom la dëggeer de nag nag daal di dellu rek foofee ca këram mu nekk nag soulagement bu nga xamante ni nemmeeku nañ ko ca ña xam ni ñoom ñooy yëngatu ci ahlu làmb mbokk yi mu noonu lii moo a fës tey ci xibaar yi di leen jox di dagge suba jàmm jëri nga jëf ci àddu bi exclusif yéeni kaay nañu nag fausse alerte au gré à gré à li nga xamante daal ñu ngi koy jiiñ Doura Baldé mu ñeel wàllum marché yaa ma neex jàpp nañ ne daf ko fa amal daal ñu ne nag lu ni mel daal dëgguwul daal dinay génn ay documents yoo xamante ni daal daal dinay fësal ni loolee nga xamante ni ñu ngi ko koy wax bokkul ak la nga xamante moom moo am na le Dakar waay yéeni kaay nañu Rufisque litige foncier sur 30 hectares à bët Sénégal mu ne Farba Senghor moom nag benn coow bu am ci suuf daal tax na ba ki nga xamante ni moom moo di Farba Senghor ñu daal di koy dégg déggaat jamono jile ci biir langue politique gi ndax nag coow loolee nga xam te ni jàpp nañ ne moom loxoom seetu ca foofee nga xam te ni moom moo di ca tëng géej yaag jëma yëpp a ngi ca daaru xudóos ci màggaluk daaru xudóos yéeni bi naan man boo nee màggal daaru xudóos sa xel dem ci sëriñ Modou Moustapha Mbacke mi amal màggal ga ci bi njëkk ci moom xalif bu njëkk bu sëriñ Touba yaataloon yoon yi ba taalibe yi ñëwoon màggal si mission matale na ko ndax tax na ba murit ci doon benn waaye tam ñu jël liggéey ak julli def ko muy seen dund ay nu wax ci nawet bi ay dégaam kon dama ko doon wax léegi gis ngeen ñaari xale yoo xamante ni ndeysaan taxunoo doon mag lool ki ci mag 13 ans la am keneen ki am 10 ans di góor ak jigéen di mag ak rakk bokk génn kër euh, ñu yónni woon leen rek ci li nga xamante ni moo di aw euh, boutique euh, mën na ni aw boutique ci jamono ji nga xamante ni daanaka taw na ba yebb yebal mooy taw yi nga xamante ni rek maanaam boo taxawul boo fa taxawul du la tooyal dalay lay guusal donc xale yi dem ca boutique ba moo xam ci ale bi wala ci retour bi euh, nu mel ni lu gis taataa bi xëy na teg ko foog ni taataa la rek bu yem euh, fekk na ak kàmb la gog kàmb ga gudd na xeetu gudd goo xamante ne aw foos la euh, ñu daal di cëy dugg nag xaw faa mel ni lu fa xaw a yàgg rek tax noonu faatu fa ñàkk fa seen mbàkken mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu metti la kon buy taw moo xam nga yor oto wala nga yor tànk boo gisee lu taa fekkente ne yow xamoo bërëb ba euh, xamoo bërëb ba mu leer na fii nii Euh, xamoo ko xamoo ndax yaa ngi dute xamoo ndax kàmb la wala du kàmb donc euh, teggi ko daal daf fay daf ciy gën parce que bu dee kàmb la am na noo ci tegee sa tànk ak doole mën nga mën nga mën nga mën nga wàcc te xale yi des fois dañuy bëgg taataay yi dañ leen di neex dañuy bëgg di ci fook yooyu même bu dee mag sax wala nga yor wattatem euh, na nga ko moytandu ko na nga ko ko bu baax a baax a baax a baax loolu daal wax dëgg bu nu sañoon rek waay rek waay nu moytandu ko yenn taataay aussi tamit jàmm yàlla def ko ci réew mi xale yi dëkk géej gi tamit ay waay euh, nu nu bàyyi nu bàyyi nu bàyyi xoolal te jàppati nan fa ak gaal te man li ma ci gën a jaaxal mooy booy ciy gën di wax ñu ciy gën di ñu koy gën di bëgg di ko gën di def te am na sax yëglekaay bu bind ni ci octobre bi sax ci tël nañ ci xale yi fii ba octobre kon gars yi nanu moytandiku gaal yi man am na am vidéo bu ma envoyé dimb benn yoon laa ko seetaan mënuma koo seetaanaat bilaay yow nit ñi nit ñi mel ci ñoo xamante ni sama yaram bi ñettatati di daw ah euh, daanaka dem nañ bay commencé décomposé wu di yàqu ci vidéo bi bi ma gis euh, ñu teer euh, no ay néew non lu métti loo xamante ni da ngay koy xool ci sa bopp rek wala nga xool ko ci sa mbokk kon waaye rek waaye toog leen toog leen toog leen toog leen waaye toog leen ci réew mi tekki fi daal am na fi aw yoon man daal loolu laa xam te loolu laa leen di digal gone yi dimbali leen nu dimbali seen bopp ma ne ko dimbali leen nu dimbali seen bopp. tekk ci réew mi mën naa ne bu nu ko gëmee nanu bañ a xeeb liggéey yi fi nekk ñu góor góor koppar yi nga jël ba di ko tukkee boo ko gëmee man nga mën nga ko liggéey fii bokkee xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon bu suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien dikkati naa dalee na jàmm lu yëglekaay bi tey ma daal di leen koy yër Sénégal bonjour cher gente de du enquête 221 dal leen jàmm dal leen jàmm ci li gën a fa ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fi laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet te baax na ñeen ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah ñu ndoog jàmm c'est tout à vos journaux et très bonne lecture. que mais la ci dong mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen ndoog jàmm day <laughs> lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko tere xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay Sonko te Sonko jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàkkin ci ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah